fileeg fileeg fukki weer ak juróom quinze mois exactement président Macky Sall dina dem loolu na yàlla loolu lépp lépp léppay jeex àddina àddina léppay jeex àddina léppay jeex ñu ànd ak moom ak i compagnon am na ak soutien psychologique nécessaire bi loolu dana ko war a xam dana ko war a nangu je que buy dem ci jàmm ak salaan lay doon ndax mu sortir par la grande porte ndax kenn mënul nangu nag ay bakkan di ndax loo xam ne lii warutaan kenn waru la nangu kenn di ci lool kenn waruta nangu alalu kenn di ci yàqu parce que ni ma ko waxee troisième mandat est juridiquement et moralement impossible bu ko defee liggéey bi ne nag jot na koo liggéey waaw ki nga xam ne senegal yi tànnal nañ ko seen bopp librement ñoom ñu continuer liggéey boobu am na seen benn collègue yenn des journalistes ñu ngi koy wax sama fait sourire daf ma ne saa yu may musóoru taxaw ci glace bi xam naa sama xel a ngi ci deux mille vingt-quatre waaw wax na dëgg de. J'y pense encore plus intensément à Dóor Dakar. J'y pense très sérieusement. dinaa dem nag ak sénégalais yi xale yi mag ñi ndaw ñi uti seen soutien kilifa diine yi. artistes yi kilifa aada yi bien sûr ak diaspora bi wuti seen soutien danaa dellu si waat nag seen jox leen voilà toutes les précisions parce que nag fii ñaaree jox benn bi mooy yàlla suñu ñaareel bi nag da koy jaarale ci sénégalais yi ak sénégalais yi kon nag ñoom rek ñoo koy joxe ñoom lañ koy laaj ni ma bëgg a jeexale mooy wax leen ne assemblée nationale nag fa lay des damay des à l' nationale pour défendre les intérêts exclusifs du peuple sénégalais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 <laughs> loolu mooy la ca kon loolu la message yi nga xam ne tey bëggoon naa ko joxe ngeen jàllale ko askan wi dégg ko sunu doxale nag toujours ci teey ak teg ak respect lañu koy teg waaye ci ful lañu mat sëkk maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant